de ku mu neex nga mel ni baay mbay mu daal di may neex ma mel ku sopp sëñ Babacar bu doon de ku mu neex nga mel ni baay mbay mu daal di may neex nga mel ni baay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 ñu leen nuyu baax di leen ziyaara di la ñaanal jàmm baax di ko sàkku si yéen a ah, dañoo ñëwoon tey si Hann TV di yëgle suñu programme muy tàkku tàkkusaanu suñu kër bi ñuy amal le 8 septembre bii di ñëw incha allah muy tombeeg dimanche bii di ñëw incha allah le 8 ah di si wow mbokk julli dem nag képp ka nga xam ne yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ñu ngi lay woo si bés bi waaw bàyyi wuñ tijaan bàyyi wuñ xaadir bàyyi wuñ laayeen bàyyiwuñ canab canaba bàyyiwuñ ñeseen bàyyiwuñ kenn képp nga xamante ni yaa ngi wuyu ashhadu an laa ilaaha illallaah rek ñu ngi lay woo di si woo si imaamu raatib yi ne si kër gi si dëkk bi di si woo uh, bilaal yi si dëkk bi di si woo ñëpp daal di si woo monsieur le maire Babacar Mbengue di ko si woo bu baax a baax a baax ñu ngi ciy woo daal képp nga xam ne yaa ngi wuyu ashhadu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammadan rasulullah rek ñu ngi lay woo ak foo mën di bàyyeekoo nag yaa xam yaraax nga ne wala foo mën di nekk rek bu yàlla jàppandale rek boo si mënee teew nga teew si incha allah ñu ngi koy amal dimanche bii di ñëw waa groupe sopp Seydi Djamil moo ñëw Ablaye Mbaye te ñu ànd ak Cheikh Omar Sall ñoom ñoo koy taxawee Oustaz Mbaye sàmm moo koy waxtaanee incha allah thème bi nag tem bu am solo la ñu ngi waxtaanee maanaam naka la taalibee wara mel ak lan mooy taalibe dinañ jox rendez-vous rek incha allah dimanche bii di ñëw képp ka nga xamante ne nii rek bëgg nga xam lan mooy taalibe ak ta kan mooy taalibe rek incha allah ñu ngi lay jox rendez-vous dimanche bii di ñëw incha allahu rabbi mu tombeeg le 8. ci boori jàkke si yéen bi ci bétu marché bi boori géej bi rek incha allah le quatre heures ba xam naa vingt heures vingt vingt une heure rek incha allah bu yàlla jàppandale ñu teel kooke incha allah salaamaaleykum mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu ku nekk asa sa tour ak sa sant di leen nuyu di leen ziar di nuyu suñu mbokk tijaan yeeg di nuyu mbokki dakar yëpp mbokki yaraax ñu ngi leen nuyu di leen ziar waaw di leen di ñëwoon tey rek incha allah di leen yëgle di leen yëgal suñu tàkkusaan bu ñu fas yéene def le 8 septembre incha allah fii si jàkk jàkk siyeen bi ah, plus précisément si wetu marché bi Oustaz mbay sàmm moo ko fas yéene taxawee at waa daayira sopp Seydi Jamil asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokku jullit yëpp di ziar ñëpp di leen woo si bisu sëñ Babacar si tàkkusaan bi le 8 incha allah fii si marché bi si wetu jàkk si yéen bi maa ngi si woo sama mbokk jigéen yëpp di ci woo commerçante yëpp képp kuy julli rek ñu ngi lay woo si bisu sëñ Babacar Si